mbokkee ndornoot yi seetaan 221 info dal leen ak jàmm ñu ngi leen di bëggee di leen ñaan bu fekkee gan nga ci seen ñu ngi lay ñaan nga abonné ci chaîne bi activé cloche de notification bi ndax vidéo bu dugal nga mën ko jot lu soxal coupe di monde bay am fële ca Qatar gayndee Sénégal yi nag dem nañ niki démb jóge nan fële ca Paris ngir utali foofu ca Qatar àgg nan foofu ca Doha nag waaye joueurs yu bëri ñoom lu toll ci juróom-ñeent rejoindre gun li nga xamante ni mooy équipe bi liko waral moy seni club ñoom ñoo leen bàyyeegul ndax dana amone ay match yu waroon a football après buñ ca joggé door a mën rejoindre li nga xamante ni mooy équipe nationale bi comme ni nga waxé nak Aliou Cissé ak gone mi dem nañ dembu ag nañ fofu ci Doha waye jëri yu ci mel ni Krépin Diatta Ismaïla Sarr ñoom ñi nga xamni ñoo nekk AS Monaco ak club bi di Marseille ñu gën ci Bamba Dieng ak Papa Gueye waye li nga xamni mom la Sénégal yépp di lam lamé ak di ko laaj bëgg ci ay leeral yu lu soxal mbirum Sadio Mané Iliman nak ñu fàttali leen ni moom dafa amoon gaañu gaañu ni fan yee ñu génn ginnaaw bi nga xamante ni club bi di Bayern Munich doon na amal benn match ci Bundesliga boobu noonu Sadio Mané nag ci la amoon benn gaañu gaañu ba waraloon Sénégal yëpp tiitoon ndax dina bokk ci coupe du monde bay am fële ca Qatar wala du ca bokk naka noonu nag Aliou Cissé mu jot na ko sélectionné. waaye lu soxal blessé boobu nag buñ sukkandikoo ci ki nga xamante ni moom mooy Abdoulaye Seydou Sow moom daal mi ngi indi ay leeral di xamle ni Sadio Mané match bii di ñëw Sadio Mané du ko football moom Abdoulaye Sow mi nga xamante ne mooy vice président fédération sénégalaise bu football daal xam le na ni Sadio Mané match bii di moom du ci loolu nag sénégalais yu bëri gisewuñ ko noonu ndax moom daal jàpp na ni waxam ji moom Abdoulaye Sow dafa yokk ci xar mi karaw ndax ginnaaw bi nga xamante ne sénégalais yëpp tiitoon nañ ak amoon nañ jàqare ak tiitaange Sadio Mané dina bokkam du bokk yow en tant que nga bokk ci kilifa fédération sénégalaise de football. génn di wax naan Sadio Mané du football ci match bee ndax gaañu gaañu bee taneegul loolu dafa yokk tiitaange ci Sénégalais yëpp kon nag sorteem bii daal Sénégalais yu bëree bëri rafetlu ko.